waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaatuli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba Mar face à face Tapha Tine Boy Niang incha allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy cappaatuli foo nekk gaana ah Pikine lay déparé ah bus yi kaar yi njaga njaay yi sereer yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëpp ay dem gars yi ah incha ñu wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaatuli yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn yëpp tëlu beer tëlu mag di diis i ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah tëngeet barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah. ñu dem def ambiance ñu def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalaan bu dofe rek naa na koy faj waaw dafa leer ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le 25 novembre Iba Mar Diop feesu fees Tafatine Boy ñaa le vingt cinq novembre incha allah ñu ci woo fan si yëpp di ci woo am di jàmm yi xam nga ñu teel a ñëw dix-huit ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha allah. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur di leen san di leen gërëm yéen internet yi di ñaan jàmm ci yéen waaye di leen ñaan ngeen ñaan naan ma jàmm ci man tey nag damaa dalalaat beneen champion comme ni ma koy defee. 19 décembre lañ wax waaye laataa loolu dañuy def avant goût tey ki ma seet si nag di fils de Badlen doomu Badlen City dama koy daal di nuyu ñu daal di waxtaan ba ci biir bi Badlen maa ngi lay maa ngi lay fay Ndeye Mbacke jële jaar di nuyu ñi nga àndal équipe bi xam nga di nuyu sama waa équipe mm-hmm. ñi nga ginnaaw maa ngi nuyu ñoom di leen sant bu baax di gërëm mm-hmm. di nuyu aussi waa SIPS. Mm-hmm. xam nga di nuyu sama papa baax a baax di ko ñaanal gudd fan boobu keroog muy fekkee suñu njëriñ quoi xam nga di nuyu aussi waa Kaolack. xam nga di nuyu waa Sénégal daal ku lim juum. Mhm. Mhm, rawatina waa Sib si waaw. Mhm. muy noonu nag Fils de la woon du ñu waxtaan ak mbër du ñu waxtaan moom si jaar jaaram bu ñu mën sa jaar jaar naka ko dundee sa jaar jaar làmb début début làmb. waaw début moom difficile na difficile quoi. waaw ndax ñun ay doomu champion lañ en plus dañoo judd fekk ngeemul ci kër gi. suñu ay mag doon bëre suñu ay papa doon bëre. kon donc ñun bu ñu ñëwee bëre waaw wàcc nañ quoi. waaw man yaakaar naa 2016 laa njëkk a takk ngeem. waaw ah, Grand Yoff sama benn grand bu ñu wax euh, Amet Amet Ndengeñ. Mhm. moo yëgoon ne am naa licence quoi licence simple. Mhm. ci la ñëwee suñu kër jël si ma ne ma nañ dem Grand Yoff bëri ma bañ ne ko non gars yi dañoo mën bëri affaire yooyu. Mhm. mu ne ma noonu nañ dem. man nag moom dem samedi la tombeel ñu dem gaskel moom daan dem final quoi jour boobu. ñu xëy suba dimanche mu jël si ma. ma ne ko non non doy na affaire yooyu mu ne ma noonu nañ dem. demaat ci dimanche bi booy fay moom daanaat final aussi. xam nga fa laa jóge ma ne pourquoi pas ma gëm sa bopp liggéey mm-hmm. affaire kenn moom ko gëm sa bopp kese la. waaw mm-hmm. ku liggéey rek ñàkk jëriñ quoi waaw. lu simple dañ ñëw ci biir a biir nga dugg lutte avec frappe dugg ci arène bi sa premier combat noo ko dundee. waaw premier combat macha allah dama ñëw ànd ak samay mbokk xam nga dem bëre yaa am gën a xam yàlla may ma dam sa guy. Mm-hmm. nga ñëw gën a am espoir yokk ci biir làmb kan mooy sa idole kan nga gën a gis ne tey jii kat gis naa ko la nga dem dugg ci làmb. waaw man nag bi may bëree bi may bëree avant may bëree daan naa supporter yi gi nii quoi. Mhm. waaw moom rek laa doon supporter moom rek moo nekkoon sama mbër ba nii maa yow sama téléphone moom rek laa ci seetaan. Mhm. moom moo gën a poussé xam nga ma bëgg làmb ko mhm. nga nekk ci làmb ji làmb ku gis ku xam làmb xam ne làmb am na ay métit yu ci nekk am na ay jafe-jafe yu ci nekk ban jafe-jafe nga dund ci làmb ba tax nga bis jot nga rëccu ne lan moo doon ma dugg làmb. non man moom làmb jafe-jafe bu ma ci mënti am. man maa bëgg quoi ak lu ma ci mënti am rek. waaw dama koy sant yàlla quoi. Mhm. Mhm. man pour man làmb aw ma si jafe-jafe quoi. Mhm. ci noonu dañuy dugg ci biir muy daal di bëri di bëri ñu gis daf si tabat leen soobu ci lutte bi lu bëree bëri lan la da ngaa jàpp ne lutte simple moo gënoon nooy lu frappe la. non même pas sax Ligue simple moo gën a métti foofu Ligue Fara bi yàlla xam na ko. Mhm. moo gën a Ligue Fara benn combat kese la bu jeex a jeex na. Mhm. mais nag da ngay samb ak sa morom pongal yoo xam ne boo leen ëppul doole ëpp ñu la doole. Mhm. ngay mbëkkante ak ñoom di gàndante ak ñoom. xam nga ñun lu ñuy daj ci équipe bi fii rek moo gën a métti sax li ñuy daj ci Ligue simple bi. waaw loolu moom waaw pour man Ligue simple moo gën a métti foofu foofu sax. lu simple ku xam lu simple di nga xam di nga xam ne kat boo ñëwee tey di nga ne tey lu simple bi ki ñëw mooy buuru lamb lamb ji yow est-ce que dal na la nga ñëw ci lu simple fekk fa mbër boo xam te ni sa bête noire la non man nag dëgg-dëgg yàlla rek moo tay wax tanor yi ngay lim si lig simple bi yëpp yëpp yëpp waaw dul saan laaj bëreelagul coriace ak franc mais ñi si des ñëpp mbëkkante nañ ma daan ñi ñii daan ma dañoo daanante quoi. Mhm. man pour ma am ma ci bëgg na war ko wax ku ma dóoree rek après dama koy al ma fayu. mosoo dugg lu simple jàpp na tey jii kat gars yi ja jékku nañu la ci gàllaaj. non non non non. Mhm. non dal. ñoo ci lutte avec frappe nga jël combat war koo bëri le 19 décembre ni ñu doon waajee yeneen comme ni doon waaj yeneen combat yàlla duñu suturaal ñu may ndam moom la ñuy waaja bi wala lu ko raw sax mhm. mm, ànd ak mbokk comme ni nga gis si ginnaaw rek waa équipe bi xam nga mhm. waa ñëpp ñu sax ma loolu mais niñ ko doon waajee rek la ñuy waajee bii quoi mhm. da nga yokku cere ñeex wàll ndax yaa ngi jógee drapeau chef de l'État ñu gis nga jël fa troisième place ñu ne ci félicité bu baax a baax xeex bi nga yokk wala contact bi non ñun nag yàlla dafa def suñu équipe fi manqué wuñu dara am na ku ñuy jàngal xeex am na ku ñuy jàngal bëre am ku ñuy yor physique ñun màkkuñu dara dañuy sant yàlla baax a baax baax mhm. bu jour baba Alphonse lu mu ñu takk ci rib moom nga ne ko Alphonse mm. lu mu indi rek incha allah rabbi <laughs> ma takk ci rib incha allah fi ñaar ñaar takk ci rib lu mu indi nga nga takk ci rib waaw lu mu indi rek incha la koy fekk dina ko fekk moom doy non xam ma nag moom moom yaakaar naa Casamance la dëkk te dëkk mu dëkk moom dañ ko bàyyi moom xam na da ah, nga bokk non jaruma xam na loolu fii privé moom jaruma si dugg quoi tax ñu bàyyi mm. moom xam na ko Alphonse xam na ko baax a baax ah, xam na ko bi dañuy ñëw ci nga xam ne mooy face to face le 25 ñu koy amalee fii ci Iba Mar ndax nga koy waajale ci mobilisation ci waxtaan ak say fans waaw comme ni la wax rek comme ni ñu waaj mm. noonu la ñuy waajee instant pare nañ ci lépp pour man sax beneen combat la ñu waaj mais pas bii nii quoi. Mhm. yàlla xam na ko. Mm, dañoo ndox du jéggi pax te bala nga naan naam ne fa bu jàllagul mënoo ko bàyyi di lijjanti beneen ah. la 19 la bu ci nekk jour la ñuy tese sa sa tolluwaay ci sa koñ est-ce que yow pare nga pour mobiliser say fant ñu ñëw Ibamar. waaw moom laa la wax mhm. beneen combat ñu waaj mais pas bii nii. bii mhm. pare nañ bu yàgg yàlla xam na ko. pare nañ bu yàgg. waaw moom li ma ko yóbbu moom daal maa ngi koy dégg si journal yi muy wax naan ay combat bi da koo jaral yu kenn xamul. Mhm. c'est moom muy paa la combat bi jaral wax ma la ak man mii di bu ndaw nekk si yoon. paa. xamoo Alphonse man xam naa Alphonse bu baax a baax. xale daal ñoom ñooy génne paa yi ci làmb ji. non sport xale Moussa kenn dàq ko bëre. Mhm. ay waaw mag yi ñuy bàyyi bëri ay mhm. kenn dàqu leen bëre. mais doole nekkatul moo ñu bàyyi. waaw moom nag classe googu la rek maa ko mën maa ko doole. barki Serigne Babacar maa ko mën maa ko doole tar bu sibilee dinaa ko wan la 19 incha allah. looy indi xeex wala bëre. non non nee mu indi rek fi la ko fekk ba mu doy sëkk ñun pare nañ ci bépp mais léegi yow lu tax yow yóbbu loo bëggee moom mu indi nga nga nga réplique ko. waaw man benn dama ko dàq bëre. Mhm. dama ko ëpp doole. Mhm. dama gën a nekk xale. Mhm. xam nga. su ma neex sax du combat bi du am minute billahi la si. mais dama lu lu mu ñu fekk ko ci. lu ñu wax ak champion te ñu wax ma bi am diggante ki nga xam ne mooy Papa Sow ak Siteu naka nga gisee affiche boobu. non que le meilleur gagne que le meilleur gagne quoi. yow bu tiit mi nañ indi amateur làmb ji nga ko gisee affiche boobu noonu. waa xam nga ñun ay ay mbër yu ndaw lañ dañuy jàng moo ko la guñ. Mhm. waaw maa ngi ci ginnaaw ñii. Mhm. comprendre nga. Mhm. moo ko loolu dañ ko bàyyi expert rek ñu wax seen xalaat ñun ay mbër yu ndaw lañ ko wax. waxuma la nga far ci kenn yow naka nga gisee affiche boobu affiche boobu ci lan lan nga ci yaakaar affiche affiche boobu. non combat bu neex la. combat bu jaar yoon la waaw. di wax na yàgg na nañ leen jàppale ñu bëri xam nga mooy loolu waaw. loolu moo nekkoon réponse bi beneen affiche bi nga xam ne yaay bëre mën naa ne combat spécial ba diggante Boy Niang ak Tapha Tine naka gis affiche boobu. ko loolu bu neex la di ñaanal Boy Niang ndam lu sedd a wërsëg quoi. Hmm? man nga ko ñoo bokk Pikine dama ko ñaanal ndam lu sedd guy incha hmm, allah rabbi. gis incha bu ñuy xool ci xeex dañ koy jox Tapha Tine est-ce a dominer Boy Niang ci bu ko dàq xeex ci lamb ji ko hmm. ñu ñëwaat ci Fils de Balla parce que temps bi ñu mën a daf ñoo xaw a xoj ñaari séquence d' entraînement ngay def instant bi non ça moom ñu ñu ngi ci yàlla xam na ko. ñu def quatre séances. jarul nag ñuy wax ñu ngi koy defee mais xam na ñu ngi si quatre séances. dañ ko tënk na bëri waaye fan naa naan topp ku ci nekk benn par benn temps bi xoj lan ngay wax say fan balaa ngay yàggatoo. waa di woo di leen woo ci combat bi di leen wax ne lamb ji seen lamb la quoi. xam nga rawatina waa Sips bi ma dëkk juddoo fa yaroo fa màggee xam nga dina wax làmb ji seen làmb ji ñoom ñëpp ma kenn mag paa xale góor jigéen ñëpp bàyyiwuma kenn di woo waa Kaolack xam nga wu ma kenn aussi xam nga di woo aussi waa Mbelo Ngij mhm. waa Mbelo dañ ma jàppale bu baax a baax baax baax di woo waa Touba aussi mhm. mel ni Aba xam nga waaw maa ngi woo ñëpp daal mhm. maa ngi woo ñëpp ak fans club bi ku ci mel ni Am Ndiaye wàcc ba suuf ñëpp ñëpp ñëpp ku lim juum ko am nga ay fans international. non bari na. kon nañu waaj PPV bi ndax lamb bi dañ ko diffuser avant pendant ak après combat bi. waa ñu déglu ma la ñun pare nañ combat bi ni beneen la ñu waaj mais pas bi mhm. sax dañoo pare ci tout le balaa. Ah, pare nañ ci lépp. Fils de Batley dama lay sant la gërëm di santaale ñi nekk sama ginnaaw nii ah cat ba cat tas yaakaar wala tas yaakaar ah tas yaakaar suma jarbaat la moom ma nekk noonu. tas yaakaar sa tur bii dañ ko lijjanti waat de waa baax na noonu la damay bëgg fi sa leen bu baax a baax nan ko du dara liggéey def sa poste ku nekk liggéey le 19 ñu xool kan moo mën kan waaye làmb ji comme ni ma ko waxee avant pendant après combat bi yëpp di ngeen ko am ci wala fi Leewtoo production ngeen amee ko foofu damay sant di gërëm sama équipe bi ah, trio bi kenn du yéen bëgg naa ci yéen bu baax a baax jox leen di daje beneen yoon ci beneen mbër beneen événement ak beneen champion jaajëf. waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaacoli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi leen wax nag bis bu mag bi incha allah vingt cinq lay doon le 25 novembre stade Iba Mar face à face Tapha Tine Boy Niang incha allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy foo nekk gaan ah pigil lay déparé ah bus yi kaar yi njaga njaay yi sereer yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëpp ay dem gars yi ah incha allah ñu wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaacoli yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn yëpp tëlu beer mag di di i ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 Waxinaan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah Tëngéej Bargny gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk cordonnade bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah ñu dem def ambiance ñu def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalaan bu dofee rek naa na koy faj waaw dafa leer ah! salaamaaleykum gars yi ñu ngi woo ñëpp le 25 novembre ah. Iba Mar Diop feesu fees tafaatin Boy Niang le vingt cinq novembre incha allah ñu ngi ci woo fans yëpp di ci woo am di jàmm yi xam nga ñu teel a ñëw dix ñëw fees stade bi xam nga Tafatine ñëw defati différence incha allah.